asalaamualeykum wa rahmatulillah ñu ngi nuyu mbokki taalibe yi kenn ku ñu nekk ci sa tur ak ci sa sant waaye li ma leen bëgg a xamal mooy tey jii ñu ngi nekk ci université euh, euh, Cheikh Ahmadou Bamba bu Touba nga xamante ni sëñ Mountakha Mbacké ah la tombeel mu naal euh, sëñ bi naal naal bi teg ko ci ay loxom mu wóolu Abdou Lahad Ka jox ko ko depuis pose première pierre ci décembre 2018 ñu commencé liggéey bi depuis 6 mais 2019 ba fii ñu toll nii maximum ci un an et demi la ñu war a toll léegi nag il faut ñu defal leen benn bilan d'étape boo xamante ni ah, mooy permettre euh, képp kuy taalibe commencer ci man mi joxe dërëm ak ñaar dërëm ñu xam ni que mbooleem duñ jox sañ mun Muntaxa dugal na ko fi ba dugal fi leneen loo xamante ni bu ñu leen ko waxoon da ngeen naan fu ko sëriñ bi jëlee loolu it ñu ngi siy sant it nag Abdou Lahad Ka mi nga xamante ne ñun mooy suñu kilifa it ah di ñu encadré te maison de presse bi depuis boobu ak léegi am nañ fi ay travaux yoo xamante ni bu dul woon yéen ñi taxaw kon am na loo xamante ni kenn du ko xam parce que c'est des travaux enterrés parce que lu mel ni bibliothèque bi la nga xamante ni rien que fondation bi jël na 537 tonnes de ciment nekk 1475 mètres cubes de béton ah, am 137 euh, tonnes de fer ci fondation boo xamante ni ab sous-sol la bu ñu paree ba suul ko. ah ku ñëw da ngay gis bâtiment bu taxaw nga gis benn euh, rez de benn étage nga ne ah lii de xëy na bu la neexee sax nga xay ko si xayma ko si cent mille wala deux cent mille te fekk na la dugg ca biir euh, taxawal na bâtiment yu mag yi la bâtiment yu mag yi nga xamante ni maa ngi ciy jëm mu nekk ci UFR euh, science islamique et langue arabe ay bâtiment la yoo xamante ni benn bu si nekk ñetti étage la te ñetti étage yooyu la seen béton lépp buñ ko xaymaa mi ngi toll ci mille neuf cent quatre de euh, de béton ça veut dire que euh, tolluwul fondation bibliothèque bi fenn loolu euh, c'était juste en passage mais université bi actuellement loowu Touba matériaux dafa laal ñetti zone ah mu nekk neuf bâtiment zone bi mu njëkkee te sëñ bi demandé woon ko mu doon majalis majalis bi dañ fa am ñaari salle d'étude yu yu fa nekk benn bu ndaw ak benn bu mag te buñ nee salle d'étude bu ndaw dina xaw a jaaxal ñu bari parce que salle d'étude bu ndaw boo xamante ni euh, mi ngi nekk 2400 mètres carrés nekk 3 niveaux donc ça veut dire que boo jëloon këru Ndakaaru bu 150 mètres carrés presque mën naa ne 7 étages la donc te ñun fii bâtiment bu ndaw lañ ko tuddee bâtiment bi ñu tuddee bâtiment bu mag mi ngi nekk 4800 mètres carrés ça veut dire que kooku bâtiment 12 étage la boo xamante ni ci terrain Ndakaaru yi. donc lii mooy li nga xamante ni moo nekk ci euh, majalis bi ñu tàmbalee mu am fa benn restaurant boo xamante ni restaurant ba 400 mètres carrés la majalis boobu nag bâtiment bu ndaw bi ñu tuddee euh, bu ndaw 1400 mètres carrés bi gros œuvre actuellement mi ngi ci 90 pour cent actuellement seconde bi moo des maanaam électricité plomberie ak euh, carrelage ak aluminium bi ak VMC ak vidéo surveillance te yooyu mi ngi xaar bâtiment témoin ba la nga xamante ni dañ ko fa def di xaar ñu valider ko maanaam def nañ ko fa boole ko joxe ay fiche technique yoo xamante ni euh, il faut que bureau de contrôle ñëw saytu ko ba ni lii ah jaar na yoon man ngeen ko répéter ci yeneen batiment yi donc loolu lay xaar batiment bu mag bi nga xamante ni deux mille quatre mille huit cent mètres carrés la moom actuellement raaxu biti moo ci des ça veut dire que donc mi ngi ci quatre vingt quinze pour cent de gros œuvre waaw actuellement moom sax d'ailleurs commencé nañu poser grille métallique yi. commencé nañ leen a posé euh, carreleur ñi ngi commencé di dugal suuf mu des restaurant bi nga xamante ni charpentier yi xëy na du ñàkk ci PC yi di ngeen ko gis euh, ñiy defar charpente yi commencé nañ ko parce que moom bâtiment ba euh, RDC la ba pare ñu charpente ko comme restaurant la nag ay nit dafay nekk 400 mètres carrés yëpp looloo tax ñu def ko charpente instant bi ñu toll nii bureau de contrôle ñëw na vérifier na fer bi jox nañ ko ay fiche technique demandé nañu plan d'action jox nañ koy aussi méthodologie ba la ñu mujjoon a tënk Sénégal dañoo baaxoo di def ay euh, charpente yoo xamante ni dañ koy suude ba pare yëkkati ko teg ci kaw mais bureau de contrôle bi ñu ñëwee ak euh, fer bi ñu demandé muy acier galvanisé dañu wax ni buñ ko suude pièce bu ci nekk ak moromam nañ ko bënn wutal ko euh, bulone ko wutal ko système d'étanchéité parce que mooy tax euh, dafa am lu ñu ciy sóoraale ñoom ci sismique bi nga xamante ne pour ngelaw léeg yu demee noonu du ko may muy mën a noyyi parce que boo ko suudee mu ne bloc benn place rek ngelaw bu ñëwee du noyyi te lu noyyiwul du baax moo tax ñoom nee nañ il faut que charpente bi dinay noyyi moo tax dañ ko war a euh, euh, su su dañ ko war a boulonné donc loolu ñoo ngi ci actuellement boo jógee foofu nag ñu dem nag UFR science islamique et langue arabe foofu moom ñetti bâtiment moo fa nekk ak mm, amphithéâtre 1500 places bi muy ñeent ñetti bâtiment yi fa toll yit ñoo tolloo mooy yu 2400 mètres carrés yi yi nga xamante ni ñetti niveau lay doon benn euh, bâtiment bu ci nekk rek dina am lu toll ci 12 salles de classe ah yoo xamante ni ay jàngukaay lay doon dina am ci ay bureau lu toll ci 8 bureau dina am aussi ay salle TD ca kaw dina am aussi euh, ay salle de réunion ak ay video vidéoconférence parce que bâtiment yi ngi gis noonu batiment bu ci nekk dañ ko relier ak euh, fi nga xamante ne waxaguma ko muy administration bi ca rectorat ba fa nga xamante ne fa la recteur bay nekk nga xamante ni batiment bu ci nekk mën na bës bouton xam lu la la fa xew ci zone yi nga xamante ni moom la demande ñu defal ko ko fa parce que it nag euh, Touba dañ di nitu sutura te it euh, bëgg it lépp lu ñuy def it ñu nekk ci référence ba nga xamante ni salle de classe yi ak euh, salle de réunion yi ak salle TD yi yooyu yëpp dañ koy relier ak rect rectorat ba nga xamante ni ñoom dañoo am programme boo xamante ni spécifique la dañ koy teg kooku moom dinañ ci ñëwaat xëy na peut-être avec le service pédagogique mais pour l'instant comme ñu ngi ci wàllu technique bi donc ñetti bâtiment yooyu 2400 mètres carrés benn bâtiment bi foofu moom la ñu tuddee bâtiment témoin fa la ñuy def carrelage fa la ñuy def euh, aluminium fa la ñuy def euh, électricité fa la ñuy dem euh, def plomberie fa la ñuy déparé VMC bi fa la ñuy déparé aussi vidéoconférence yooyu dafa nekk ay dafa nekk ay corps yoo xamante ni jotewul dara ak grosseur bi mais bu ci nekk dafa am spécification looloo tax sax tey jii ñu indi leen fii ci bureau bi parce que batiment bu ci nekk dañ ko ubbil actuellement casier parce que bi ñu toll ci gros œuvre bi ciment lañ soxla béton lañ soxla ak suuf ak fer kooku ñetti composant yooyu te ñetti composant yooyu gàcce nga la alama Abdoulahat Ka parce que ñun nu sommes des techniciens te yàgg nañ ci ay chantier te gis nañ ni foofu daf ñu accompagner dem ba Turc dem ba Espagne dem ba Italie indil ñu central à béton bu njëkk ba Touba dañ naan góor euh, peel jigéen palaat ñu xëy suba ba vingt heures wala vingt wala wala minuit di kuule rek di kuule rek waaye nag euh, lépp lu ñu daan kuule ci euh, bis actuellement ak centrale à béton bi mi ngi def cinquante mètres cubes par heure mu dem jënd ay tuppi yoo xamante ne benn bu ci nekk dix mètres cubes la indi ko teg fii bi ñu ñëwee aussi ba commencé romb fondation bâtiment yi nekk trois étages béton bi lu koy jëlee si suuf yóbbu ko ba ay vingt cinq mètres mu dem indi ñaari pompe à yoo xamante ne benn bu ci nekk dina la pompeel dix mètres cube ci dix minute nga xamante ne bu ñu ko placé tuppi bi bu ñëwee dix dix minutes la fiy def dix mètres cube lay indi sotti ci pompe bi pompe bi di ko ak ca kaw maçon yi dañ fay nekk di dressé foo xamante ne da nga fa daan gis mbooloo ñu dajaloo léegi ñaari nit nga fay gis parce que li si des yëpp pompe bi moo koy def donc muy benn ñaaree bi aussi mu indi nag laboratoire boo xamante ne bu njëkk ba parce que kenn ñimewul def euh, euh, ci euh, bâtiment bu sérieux ay liggéey te doo am laboratoire di contrôler sa béton est-ce que béton bi jaar na yoon wala jaarul yoon te it yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ni il faut ñu di ko bàyyi xel laboratoire bi dafa indi laboratoire boo xamante ni dafa ànd ak presse ba pare nag ànd ak système dernière génération pour ah suñu éprouvette yi et puis en même temps it ñu demandé ñu ñu def formulation de béton pour xam saako ciment bu nekk ah suivant qualité béton bi ah li ñu ci war a def suivant suuf bi lu ñu ci war a def dem nañ ba njaal benn gi ñu wax ñu suuf bi nañ ko corriger parce que suuf tubaab bi euh, nañ jëli bu njaareem bi ñu indee bu njaareem bi ñu corriger ko ak li ñu naan 03 pour mën a liggéey yooyu yëpp Abdou Lahad Ka def na ko tey jii fi mu nekk nii bu ñu duggee ci seen PC yi bu ngeen laal mën nañ leen a wax bis bi ko liggéey bañ koy liggéey kan moo ko autorisé plan yi ko def ak autorisation yi nga xamante ne am nañ ko donc yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ni euh, def nañ ko fii looloo tax bi mu tolloo fii nga xamante ni nag moom mooy nag léegi nag seconde œuvre mu ni nag seconde œuvre bi it aussi dafa bëgg bu ëllëgee kenn bañ a wax ni matériel bi fu mu jóge matériel bu muy indi da koy indi mu nekk benn matériel mu def ko si villa témoin ba pare nag indi fiche technique am ak méthode euh, méthodologie de pose bi ak ah ñu jox ko bureau de contrôle ba mu xool validé ndax lii ISO 9000 euh, accepté na ko wala accepté wu ko est-ce que la communauté internationale accepté na bii matériel wala déet dem nañ ba ci karo yi nga xamante ni karo bi moom tant que xoosuñu ko xoosa xoos ba karo bi jeex takk ah doo mën a euh, xam ci karo bi dara moom la ñuy wax ay u 3 p nga xamante ni bu boobaa nekkul grès émaillé boo xamante ni bu ci ñaari tànk jaaree mu xoosu bu fekkoonte ni dafa fekkoon mu xonq mu verte mu mu ñuul wala bu fekkee dafa ñuul euh, mu mu jël beneen couleur mais kii couleur bi ngeen gis ci carreaux yi boobu couleur moo fi nekk te it aussi moom euh, plein gré la donc lii mooy li nga xamante ni def nañ ko fi donc nag instant bi ñu toll nii nag euh, depuis semaine passée daa mel ni moom Abdoul Ahad Ka dafa xamoon ni réunion coordination dafa am lu ñu bëgg depuis semaine passée la commencé jël kàngami entreprise bi ñi commencé ci chef de chantier yi ñi commencé ci ouvrier yi ci manœuvre yi ñi commencé ci chef de chantier yi conducteur des euh, de travaux yi ba ci directeur des travaux bii ma nekk ak euh, suma directeur exécutif ñu ñëpp daf ñu doon dajale depuis semaine passée duñu demander pour ñu saytuwaat kayit yi parce que nee na buggul daal ëllëg si biir dara loo xamante ni daal lu koy euh, loo xamante ni dinañ ko ko laaj te du ci mën a tontu. ba tax na donc plan d'action yooyu ñu doon def nag da nekk plan d'action yoo xam te ne pour seconde œuvre bi la te yooyu yëpp actuellement pare na ko ba instant bi toll nii li nga xamante ne moom la euh, réunion coordination soxla sëriñ taxaa soxla ko képp kuy taalibe soxla ko mooy que ni instant bi ñu toll nii yàlla dimbal nañu ba nga xamante ne ku mel ni président de la république ñëw na fi ku mel ni ay directeur euh, université du Sénégal ñëw na fi ku mel ni ay recteur euh, ñëw nañ fi ministre de l'enseignement ñëw nañ fi te ñoom ñëpp am nañ euh, vraiment lu leen jaaxal tuuti ci délai bi nga xamante ni muy un an et demi bii ñu jot a def fii université bi toll te am na yeneen i université yoo xamante ni jarul a tudd yoo xamante ni def na ñaari at euh, tolloogul fii donc yooyu mu nekk yoo xamante ni yu leen jaaxal la Abdou Lahad Kane nag dina leen gën a jaaxal parce que ci seconde œuvre bi lay dem parce que bâtiment mën naa dem ba ni ñum taxaw. kuy romb di nga gis bâtiment bi di jug nii nga naan ñee ngi liggéey mais dina dem ba bu bâtiment bi taxawee mën nañ faa def weer wala ñaari weer te nit mën na faa romb te du xam lan la ñuy liggéey parce que boo nekkee ci biir di def carrelage kenn du ko gis boo nekkee ci biir di def électricité kenn du ko dis nga nekk ci biir di def plomberie ak yeneen léegi nag Abdou Lahad Ka dafa dem indiwaat ay li ñu naan ay gadget la mais c'est des gadgets professionnels parce que instant bi toll nii fi mu nekk nii su ma doon contrôler appareil bu njëkk bii rek nga xamante ni lu mu gàtt gàtt gàtt dina jar deux cent mille francs ah, nga xamante ni mënoon naa ñàkk it nag parce que bu ma ko jënalul woon it dinaa jël sama mètre dinaa nit demal téyel ma fële ma euh, mesurer dimension bi est-ce que lii ñu ma santoon ndax loolu laa def parce que dama war a defar plan de récolement plan de récolement bi mooy lan mooy que ni projet bi ñëw na plan yi nii la lii la joxe mais à chaque fois à chaque fois dañuy ñëw di def ay modification service pédagogique di ñëw gis ni que lii bu ñu ko doxalee woon nii moom mooy gën yooyu yëpp ñuy def ay modification bu boobaa it nag léegi appareil bii nga xamante ni laser la danga koy jël danga koy pointer. ah euh, point bu euh, point bi nga gis nii ah fu mu taxaw boo bësee bouton rek automatiquement daf lay wax ni la yow fii nga taxaw nii ba foofu mi ngi nii nangami mètre la wala nangami centimètre la daf la koy jox donc loolu it bu fekkente ne da nga bëgg mesurer faux plafond it aussi soxlawul ngay ànd ak kenn mën nga bàyyi ba nit ñi liggéey ba wàcc parce que nag loolu moom mooy rôle directeur des travaux wala conducteur des travaux parce que bu nit ñi liggéey ah di nga joxe ay instruction mais bu nit ñi liggéey ba pare aussi ci jour bi balaa dara wow war ngaa mën a xam ni li ñu def baax na wala baaxul bu fekkente ne lu ñu war a ñu rectifier ko bu mu ba ci bi muy tooy bañ a bàyyi ba mu wow nga naa ñëw naan tojal ma lii wala tojal ma laa loolu taxu ñoo jóg beneen bi nga xam te ne moom moo ci desit mooy que ne appareil nga gis nii moom it appareil laser de niveau la que bu njëkk ba da nga daan jël niveau sol ci ndox jox ñaari nit kii téye fii kii téye fële nga yore sa big di leen topp yëkkatil wàcceel yëkkatil wàcceel boo paree di ko fi tax léegi nag appareil bii moom it nga gis nga ko ni benn bouton ngay bës régler point bi ngay régler ba mu normal rek li nga koy gis nii dafa am bu la neexee nga def ko ci euh, ci trépied bu la neexee dafa am aimant foo ko indi rek man mën na faa taxaw nga niveauté boo xësee ba niveauté mu taxaw point bi ngay xës ba marqué jaratul bu la neexee nga bàyyi ko fii bayit des na mit aussi muy plomage yi ba ci bu fekkente da ngay commencer euh, def euh, faïence donc am na nu muy demee daf lay jox carrément say angle droit bu fekkente ne da ko jël à 30 degré 45 degré 90 degré appareil bi da lay génne lépp loo xamante ni du ko bàyyi te lii lépp it nag wax dëgg yàlla bi appareil moom déjà sax man xaw ma ñaata la jar xam naa ni euh, nee na ma bul ko toppatoo li nga soxla wax ko rek ah dinañ la ko indil donc appareil bii actuellement man personnellement ci notice bi maa ngi koy doog a commencer parce que bu njëkk ba dañ daan am yeneen méthode yu ñu daan def te it nii mu nga xamante ne ñun nga xamante ne ñun ñooy euh, cadre yi nga xamante ne ñun ñooy techniciens yu mag yi mais terewul it aussi daf ñuy demander te it loolu waxaat na ko léegi avant ngeen di ñëw defal na ak ñun réunion boo xamante ne toog nañ depuis presque mën naa ni dix heures ba léegi ah uniquement pour ñu jéem a taxa seetaat suñuy taxawaay taxawaay yi mooy lan mooy que ni nee na on n'a pas droit à l'erreur buggul ñu def dara di ko defaat. buggul ñu def dara ba pare wàññeeku nit ñëw di fa teg baaraamam nee na loolu moom nekk na loo xamante ni parce que nag bâtiment dina toll foo xamante ni ah, la nga war a def mooy que ni boo bëggee ni damaa bëgg a pare dat sàngam mooy que ni na yéex na lëfin waaye na baax heure boo xamante ni def nga dara bul ci dellusiwaat te keneen du ci dellusiwaat te aussi na am këyit goo xamante ni wóor na la ni ñi ko war a saytu saytu nañ ko parce que dañ fi am ay architecte am fi am euh, euh, ay bureau de euh, d'étude ba pare am fi ay bureau de contrôle ba pare am ñoo xamante ni ñoo représenté sëriñ bi di fi nekk ah sans frontière wala sans limite wala ñu ñëw à l'opiné ah dugg fi filmer Euh, jox fi génn fi ay instructions yoo xamante ni ñun yenn saa yi sax dinañu jaaxal parce que yenn saa yi ñu ñoo fekk benn post boo xamante ni bu ñu ko filmé mais dina tax ñun ñu gën a xam ni que ah kon bu ñu góor góorgóorlu woon benn nañ góor góorgóorluwaat fukk. parce que ñoom dañuy ñëw di ñu ñaax ñun attention ñun bu ñu ñëwee amuñu fii la ñuy xool wala fële la xool dañuy ñëw di filmer di dem seen yoon rek te bu ñu filmer ba pare dañ koy wo yóbbu dans sur le plan international te it loolu it aussi dafa am ñaari volet benn bu njëkk bi tax na ñun bu ñu doon góor góorgóorlu benn ñu góor lu ñaar beneen bi si des tax na taalibe yi nekk Sénégal ak ya nekk bitim réew bu ñuy gis liggéey bii ah, dinañ xam ni que ñoom seen dërëm ba ñuy joxe ah dëgg dëgg ah, def nañ ko fi ñu ko war a def te sëñ Mountakha Mbacké moom gàcce nga laama tey jii ah. amul dara luñ ko mën a wax loo xamante ni lu dul wóolu bi mu wóolu Abdou Lahad Ka te it Abdou Lahad Ka gëm ko ànd ci ak moom ànd ci ak ñu nit parce que fi mu nekk nii ñun dañuy toog moom yaakaar ñun ndax moom maire la wala entrepreneur la parce que ñun ñi techniciens yi sax fi nekk nii dinañ tëral suñuy euh, planning defar plan d'action été ko par des commande ak yooyu commande ya ñuy commandé ah ba nga koy commandé fekk moom commandé woon na ko da ngay commandé fekk oto bi ñëw taxaw parce que loo commandé léegi oto bi ñëw taxaw ça veut dire que kon oto bi taxaw am na euh, commande bu ko jiitu kon moom avant que ñun ñi nekk ci terrain bi ni dañoo soxla nangam moom dina fi jaar euh, suba dina fi jaar bëccëg dina fi jaar tàkkusaan yenn saa yi dina fi ñëw guddit ànd ak ñi mu war a àndal yore xool la mu war a xool da ngay xëy rek ni bindal ma boo de commande camion bi ñëw gaare xam nga loolu lu lu lu doy waar la beneen bi ci desit aussi day ànd ak ñu nit aussi ci ñoo ngi nii léegi léegi bi ngeen di ñëw ñëwee nañu fekk ñu jóge ci réunion réunion boo xamante ni mais lu ëpp ca réunion ba day nekk loo xamante ni da koy accès ci loo xamante ni luy defar la rek benn nee na tolérance zéro ñaar ah nee na am na loo xamante ni du ko accepter kenn instant bi toll nii sëñ Mountakha li mu ko jox fii la ko teg ci bakken bi seetu ci doom seetu ci jarbaat seetu ci euh, keneen koo xamante ni da nga fee ñëw mu di la fay. saa dina toog avant décompte di ñëw jaay na fi terrain ci lu ma yëg jaay na fi ay nag ci lu lu ma yëg parce que chaque 15 jours ñu fay nit ñi tey nit ñi ñuy fay par 15 jours dinañ leen fay ñu jëlee fi xaalis mais dinañ leen fayit ñu jëlee fi xam-xam. tey jii am na ci université bi ñoo xamante ni mën naa ni jot nañ seen lijaasa ba ñu ngi ci yeneen i chantier parce que bi ñuy commencer turc yi ñu fi indi woon ak euh, italien yi ak euh, espagnol yi ah dañoo defoon transfert de technologie dañ daan jël benn étranger boole ko ak ñeenti sénégalais ñu nekk benn équipe ñu ñuy liggéey loolu fi mu nekk nii am na fi coffreur yoo xamante ni instant bi ñu toll nii ay sociétés yu mag yu ma mënta tudd ñoo leen jël yóbbu leen mais il est bien vrai que bañ leen di yóbbu fekk na ñun lañu ñu soxla woon am nañ ko ba pare parce que instant bi ñu toll fii toll ni actuellement en gros œuvre à part bibliothèque bi nga xamante ni parce que dugguma foofu muy administration administration ba ñaari bâtiment moo fa nekk benn bi mooy rectorat benn bi mooy bibliothèque bi te rectorat bi actuellement quatre étage la ak euh, terrasse actuellement ña nga ca terrasse ba pour defar dal ba li si des yëpp actuellement ci bibliothèque bi vitrage la aluminium la te tey jii actuellement benn batiment bi nga xam te ne moom lañ def bâtiment témoin espagnol yi ah, ba ñuy ñëw Abdoulahat Ka dafa fekk mu dem jéggaani jënd atelier complet boo xamante ni mi ngi ko installé fii biir Touba atelier boo xamante ni lépp lépp fii lañ koy defaree benn bâtiment bu 2600 mètres carrés bi aluminium bi yëpp ci ñetti fan lañ ko def posé ko ci ñetti fan. lañ ko def posé ko ça veut dire que bu boo ko bëggee def juróom-ñeenti bâtiment mais kooku daanaka du dara waaye nag dafay fekk nag nga jël say précaution jël say méthodologie jël say euh, jël sa matuwaay. actuellement administratif administration bi rectorat bi moom féete na boor mu des nag euh, bibliothèque bi bibliothèque bi moom ci boppam moom la ñuy wax ni moom mooy bâtiment bi nga xamante ni moom moo fi am sous-sol ah boo xamante ni 2400 mètres carrés la. moom sous-sol boobu amoon na radier am ay poteau yoo xamante ni fondation kese rek kese moom lañ wax ni jël na 537 tonnes de de ciment léegi ñu ngi jëm nag léegi ci euh, euh, rez de bi actuellement coulé nañu plancher haut bu sous-sol bi rez de bi poteau yaa ngay taxaw moom. ah dafa war a nekk euh, normalement ci yoon ñeenti étage waaye duñ ci mën a wax wax bu sori parce que it aussi bañ koy xayma booba moom rek moo fi nekkoon comme bibliothèque te jamono ñu toll nii dañoo defaat beneen bâtiment boo xamante ni bibliothèque lay doon boo xamante ni ñu tudde ko kër xasida yi te suñu at euh, suñu mbokk yi la nga xamante ni suñu xarit lañu ah ñoom it ña nga ca nekk te ña ngay avancé donc non moo tax ñu bëgg a xool ñu koy xayma ba nga xamante ni lii day continuer euh, yem ci batiment bi la sa des dem ca beneen batiment bële it université bi tamit aussi defaral nañ ko noo xamante ni kër du pare noonu lañ ko mën a tuddee parce que Sénégal euh, université Dakar nga ne la tey tey tey tey boo fa demoon fekk fa bâtiment yu nekk en chantier ñu di ko xat-xatal ci ruq ruq ay ruq-ruqaan fii nag on est à 23 hectares. te fi mu nekk nii bi bâtiment yi taxawee ba pare dese nañ fi espace yoo xamante ni ëllëg si biir ah ku manti ñëw ak la nga xamante ni sëñ bi nal na ko te ñun egseegul si suñu xam-xam ci li ñu yëg ah loolu ay place a ngi fi démb rey réunion de coordination rek wax na ko nee na leen actuellement wax leen ma seeni priorité ma defal leen plan d'action defal leen planning ñun rey ñoo tey bi loolu moo doon sababu ñoo bi demandé nañu batiment bu nekk ah lañ fa jot a def la fa des ñu war ko faa def pour mu jeex nee na loolu la bëgg a xam donte milliard la it ah du xaar sëñ Mountakha du xaar taalibe dina ci taxaw en attendant que eh, kuy ñëw di ko ci fekk léegi nag ci biir loolu it. ah nañu xam ni que bi ñuy commencé université bi dañ ko commencé woon rek ah ci commencement boo xamante ni booba lu bari xew fi woon mais diggante bi lu mel ni pandémie bi bi ñëw na mu nekk feebar boo xamante ni jaaxal nañ ñu bari fii ci Sénégal ba ca bitim réew te terewul jamono boobu mu ngi tombe woon ñuy liggéey bëccëg di liggéey guddi instant bi ñu toll nii bi bi nga xamante ni loolu ñëw na dafa obligé jël ay kaar teg ci biti ba pare euh, boobu ñu amoon couvre-feu ñuy wàcc 6 heures nit ci dugg ci car yi mu dem déposer leen le matin ñu teel a xëy si ah mu indiwaat leen léegi it nag loolu dafa wàññi woon rythme bi te nag ñu demandé woon plan sécuritaire boo xamante ni moo doon ah, il faut que même ouvrier yi seen bopp bu ñuy liggéey sax dafa am benn distance boo xamante ni dañ leen wax nañ koy bàyyi te it aussi képp kuy dugg it jël nañu sécurité am nañ koo xam te dañ ko jël espécialement pour la sécurité kuy dugg dina la bu laajee raxasu di nga raxasu bu laajee mu defal euh, gel dina la defal gel te it boo duggee ci biir dañuy demander pour masque bi xëy na man li tax mënuma ko monter parce que euh, boo ko tàmmul te mënoo wax it te mën a doo mën a wax lool lool te yéene rek bëgg li xew fii ngeen xam ko rek moo tax ma dindi masque bi teg fële waaye moom waa presse bi sax dañ ma ne woon foog nga monter ko man leen nag moom bàyyi leen ma rek ma wax ak yéen bu ma paree dinaa ko monter waaw waaw léegi nag euh, dañ fi am nag benn poste bu ñu naan euh, euh, kii poste incendie maanaam sécurité incendie sécurité incendie bi nag dafa nekk d'abord fi may njëkkee mooy fi nga xamante ni foofu la Abdou Lahad Ka njëkk a xeexe ci étude ci bureau de contrôle parce que da ci am bâtiment yoo xamante ni normalement dañ ko waroon def urdi def ay élément teg ay brique ba pare couler béton loolu bu ñu ko defoon kon heure bi waxatuñ ko pare nañ bu yàgg mais dañoo obligé parce que loolu bi ñu ko xaymaa ba seet ko ak bureau de contrôle dañuy wax ni loolu bu dee téye euh, lakk-lakk yàlla tere bu mu amit mais du weesu trente minutes ñu ni doyul kon il faut que ñu am une tenue de feu au moins deux heures de temps bi ñu delluwaatee ci études yi delluwaat ci borom xam-xam yi delluwaat ci bureau de contrôle ñu ni kon dañ koy def ay dalles pleines de vingt centimètres ak de vingt cinq centimètres nga xamante ni ba pare wutal ko ay juin coupe-feu yoo xamante ni au moins yàlla tere bu fekkante ni lakk amoon na fit euh, dina mën a téye euh, incendie bi deux heures de temps ah ku nekk ci biir bâtiment man ngaa toog ci biir bâtiment la ko wër yëpp di lakkit nga toog fa deux heures de temps yoo xamante ni doo yëg sax ni dara xew na fi en attendant que système te def nañ fi ay bouche incendie yoo xamante ni dañ ko lëkkaloo ak waa sapeur pompier ba nga xamante ni buñ doon ñëwit même bu xot oto Euh, bu bu mànd bi ñëwee kese kese kese sax bu duggee ba ci université bi diggante bi muy dugg ci buntu université bi ba balaa muy àgg ca batiment ba mu concerné am nañ système boo xamante ni def nañ ko ba nga xamante ni lu mu gàtt gàtt gàtt mën nañ mën nañ ci mën nañ ko sonal ndox ba ba mu fees te beneen it des na it mooy que ni dafa am ay détecteur de fumée bu nit nekkoon ci biir euh, salle làqatu fa waxuma sax leneen parce que même cuuraay bu ko fa taaloon sax ba cuuraay li ëpp dayoo sax ah détecteur de fumée yi dinañ ko détecter ba pare daal di euh, euh, taal sirène bi pour que ñu def attention bu fekkente ne nag lakk-lakk la boo xam te ne ci biir la nag bu ko détecté automatiquement moom ci boppam mooy exploser def mel ni lu mel ni luy arrosé parce que ndox mi day ñëw automatiquement da koy arrosé sur le champ mu daal di fay donc yooyu yëpp dañ ko def te loolu dañ ko lëkkale it nag avec un système parce que bu njëkk ba dañ defoon système analogique boo xamante ni euh, mooy bu njëkk ba rek ñu ne nag non léegi système numérique bi moo xew donc lépp nañ ko numériser ba nga xamante ni ku mel ni recteur bi ah ku mel ni ñenn ci borom xam-xam yi wala ku mel ni Serigne Mountakha Mbacké mënoon nañoo toog fi di def conférence ci ci amphi 1500 place bi wala même ci salle d'étude boo xamante ni majalis la ñu def ko vidéo conférence boo xamante ni élèves yi toog. ah heure bu recteur bi bëggee def intervention sa fa mu nekk wala ku mel ni sëriñ bi bëgg a am kàddu bu mu joxe mën na ko joxe ñi di ko gis ah moom it mu jàkkaarloo ak saal bi ña fa nekk man leen a wax wax boo xamante ni day mel ni moom mi ngi teew ci ci ci séance bi te aussi lu mel ni amphi bi def nañ fa ay système acoustique yoo xamante ni ki toog fii ci kanam jàkkaarloo kii wax ak ka toog ca kaw ah parce que cent place ak ka toog ca kaw ni ko kii di yow it macha kaw noonu nga koy dégge te it ñaar bu ñu to dendee toog nii kii toog euh, professeur bi di wax olof kii bu bësee bouton takk ay écouteur am bu ko neexee mu dégg ko arab kii mu dendal bu bësee bouton bu ko neexee dégg ko allemand bu dee keneen toog na bu ko neexee dégg ko saraxule donc yooyu yëpp def nañ ko ci système boo xamante ni dañ ko def fii ci euh, ci kii bi te it yooyu it nag ñun nañ ci santaat ñun ñun la wax nañ ci santaat Abdou Lahad Ka parce que Abdou Lahad Ka dafa commencé woon avant lii duggoon na ci université te duggoon na it ci université virtuelle yi nga xamante ni moom dañuy wax ay ENO bañ ko lancé fii Sénégal moom mooy euh, première personne bi nga xamante ni moo njëkk a def réception bâtiment fële sa Saint-Louis moo tax dañoo mujj jël beneen bâtiment boo xamante ni ñeneen a ko yoroon ñu nangu ko ci ñoom jox ko ma ma nga fële Kër ma Massar. am na yeneen yu ñu ko doon proposé même fële euh, Casamance ba man mii demoon naa fa waaye ba ñu delsee dañuy déedéet moom daal euh, université Touba bii fi ko sëñ Mountakha teg ba jiital ko ci moom daal fi mu nekk nii baax na. soxlaatul appel d'offre soxlaatul leneen instant bi ñu toll ni liggéey bii la bëgg liggéey ba àggale ko leneen lu muy jëf mu jëf ko donc nag euh, wasalaam euh, loolu la ñu amoon lu ñu leen di wax